waaye ki gëm yàlla nekk ci moom dana ko wóor ni maanaam man li ma xam mooy ñi toog fii ñi cëpp bokku ci parce que sentiroo ko loolu mooy li fi ne waaye am koo xam ni ñaari fan ñetti fan lekkoo naanu am na ñoo xam ne sax ba manifestation commencé ba keroog muy jeex heure jàmm yàlla yëpp ci caméra la lay fekk nga toog di seetaan keroog ba ne cëpp ci dëkk bi nangami fan am ñu fanaan ci mbedd. am ñu ci faatu suñu xaar yi ba koy wax tey parce que loolu lañu sentir ay buñ ko gëme yàlla noonu di ko dawee noonu ci ajjuma yi ci biir juma yi kon loo xam ne yàlla kenn ah sëñ bi maanaam lin xotti ci ay ay ay tiset solal ko le monde entier laay wax ndax du Sénégal ke fépp la xewee te néew ji doole yi nekk ci biir àdduna bi bu ñu leen ko dundalee woon loo xam ne yàlla kenn. da ngay gis benn politicien bu bëgg ko topp mu wut 5000 ak taset may ko nit surnu yëpp bind ko ne dañuy fo waa affaire bi ñaata milliards lañ ci fere est-ce que ñëpp la jariñ ñi ko gëm képp ñoo ñoo ci bénéficié wu xoolal ma loolu. waaw bu ñu demee ba ñun yàlla mën mënatunoo bigloo rasulaay mënatunoo bigloo alxuraan mënatunoo bigloo waxtu juróom mënatunoo bigloo lu dañoo wax ni sport moo mën a boole sénégalais yi fu Sénégal jëm sëñ bi ñu doon ñu doon ñu doon waxante lu dul ñëw na ñëpp suur keroog gis dañu dajale saafonte ngir liñ doon topp pourtant dégg naa sax kilifa gu wax ni yi ko jiitu. bëgg lu garaaw a tax àjjuma ci passé imaam yëpp ci noonu lañ doon xutba pour dénoncer leen te ñoom ñu nangu journal yëpp wax ci seen mbir ngir nit ñi bëgg leen loolu dafa renversé wu lool xoolal loolu yàlla xiirtal ci boppam. sëñ Ibrahima daa waxoon ne yàlla képp a bëgg bëgg leen ko. yàlla képp a jar a sopp sopp leen ko loo sopp lu dul yàlla ana loolu fi ne passé na. après loolu nag lan lay teg suñu ginnaaw yàllaa xam waaye bëggante ngir yàlla rek woo ku ci ko maanaam koo ci xam ne sax dangay wax ni yëguma ko pour yow da ngaa feebar te fekk yow moom ñu da ngaa feebar yow yaa jàpp ñoom ñoo feebar parce que am na koo xam ne warul am jot baaxut xam nga xam nga bu dee bu dee ku mel ni sama jëmm ji nga xam ne fan tàmbalee ba fi mu jeexalee koo xool ndax yëgu moo ni mi ngi dox parce que amoo temps te du bañ ko daa ko tëlu yàlla xam na lool maanaam nit day nekk ci lu ko amal njariñ ba li la amalul njariñ du la lool loolu la sariya wax defe naa de li gën ci ab jaam tarkuhu maa laa yax ni waaw koo maa laa yax ni lu la amalul njariñ yow jullit fexeel ba bu ko tal te ku nekk ci la war du ko tal gis nga soxna Marème ñàkk defar ci ñun egg na ci te yëg yëguñu ko nag saytaane iblis àdduna wax nga ko léegi fii fi ne liy defar famille fi ne génn na ci suñu famille te yëgu ni génn na ci xam wax nga fii léegi dañ naan bokk ci nab mën a jubbanti sa doom man ko orienté fu baax waxuma la bokkati nab bokk saal waxtaan sax te nanu waaw toujours man dama ciy xuloo sama kër sama tante mi day ñëw ba toog sans wet war a waxtaan maa moom jël portable am toog nii dama koy wax ne ko portable mu dugg ci saal bi boo ma soxlawul soxla naa la te yooyu yooyu yéen ñëpp loolu dal na leen borom kër ak soxnaam boo nekk ci saal bi kenn ko la jël sa portable. di kalaw kalaw di kalaw kalaw koo xamante ni kii doo ko dicté te moom du la dicté boo noppee tek ca commentaire yoo xam ne kenn xamul foo ko jëlee lu muy jariñ waaw teenoo jéem a delluwaat ci liy yar njaboot yi ba tax sànku gën sànku dañ su ngeen liggéeyatee ba wàcc. ku journal lii teel baax na su paasee teg leen portable yi ngeen jëm éduquer seen i xale. yaay jot portable boppam lay yor doom jot portable boppam ni yaay portable boppam bàjjen kenn du wax ak kenn kañ la kër gi baax mag ñi daw ñu yare noonu kii nga wax nii soxna si te mu dénkaane doomam ji ci ci yimam junay ji mu jox ko si si surtout yi maanaam bëgg doomam baax a taxoon mu yóbbu ko ca daara ja ñooñee dañoo amoon jotu xale bi moo tax sànq wut ne kon mu dee ca dex ga waaye nun kenn yaru kenn taluñu la sax muy feebar boo xam ne psychologiquement tubaab yi loolu lañ bëggaloon te gàñe nañu ko lan ci yàlla musal loolu mooy dafi nekk moo tax suñu tubaab waxee nii nii te wax jooju dafa dafa dafa valable dafa concerné ku ne waxoon naa ko wax bis maa ngi fàttaliku ca tuuru Mama Jéey waaw maanaam yedd sa bopp ak ñu yedd la ah wala nga yedde hmm. ca tur maama jeere bayit bii amoon defe naa yaa ko jàngoon de waaw waaw est ce que est ce que nun ñii ku nekk du jël lool defar ko sa bopp sëñ Tuubaa nee na su ma toogee benn moment boo xam ni diirub li may dund suñ borom dafa wax ni bul wàcc hmm. dawal ñëw ma jekk ba benn jamono bakken bëgg maa xiirtal ci demal nelawi wala tànk bëgg maa xiirtal ci demal doxi wala loxo bëgg maa xiirtal ci demal jël nàngam wala bëgg bëgg maa xiirtal ci demal xool nàngam nee na sama xol mooy ñëw ni ma Ahmadou ma ne Mbàkke man ma lànkal gaa yi àndal ñu accompagner la dañ lay dugal Moussa arrêté leen ma égal arrêté leen lépp. dégg nga li wax. nee na ma ne ba cër yii nga xam ne ñoo ànd ak ñoom. te boo léegi dañ may seede. bëgg maa xeetal ci jëfandikoo loo xam ne su ma ko jëfandikoo ma perte ñu perte. sama xol mooy opposé wu. ne ma bul topp sa loxo bii lim lay jëlloo. man ñi toog ak yéen. kan la ma est sama xol dana ma yedd ci ma bañ a laal lu ma dul laal wala yow kan ci yéen boo bëggee dox tànk caaxaan la sab xol di opposé wu ni la tànk bi boo ko toppee mu dugal la kan ci yéen moom la bëtam di xool loolu araam xol bi bañ ne boo toppee sa bët mu dugal kan yéen ak man la biiram di bëgg a lekk lu araam yëf yi jàmbur sab xol ni la boo ko toppee moo la yóbbu sawara man ak yéen kan ci yéen la ci awraam bëgg a def loolu bon sa xol opposé wu ni la bu ko topp bànneexu cinq minutes jarul gàcce ak alaaxira kan ci yéen ak man maa ngi koy laaj la monde suñ doxee ba xol bi moom ba ma bëgg bëgg loolu bànneex kan ci yéen la ab loxo bañ ne xol bi lànk naa jëluma kan ci yeen moy dem ba xolam bëgg banex awaraam ni ko nungu na lànk na portaxaasiyeetu bi ma la wax ni de demon na bañ bañ man ko ci kaddu xolam bañ mu teyelo yalla e ciram yaa ngi fatte kuraa adawiya mi waxon yalla ni ko borom keur bi ma andal da bëgg nga may ma katan mo wax ak mom parce que may ben banex li ngeen di amour walu sexuel ci sama digganteeg mom maa ngi lay may nga may ma kàttanu man ko seere man woote woote ak borom këram ni ko ndax bëggoo ñaareel ku ko xalaat du ko takkal sa borom kër ñaareel te bi nga koy takk bi nga koy def bëgg fii teg yàllaa tax waxuma ñaareelu dama laa talatu parce que sama business ma yetuma ko waxuma boobu de am na ñoo xamante ni moom bu noonu seew seen borom ko du leen tal parce que business bi ñu nekk la yaa ngi fay fay rek ci avion yi parce que business bi ngay topp moo la gën a seere kër gi maas gi koñ bi ndey dikke gi liggéey bi moo tax tanatoo waaj waaye yàlla taxut de kon waxuma ak kooku ki yëg yàlla laa wax ba yàlla ji egg ci wóor na ma ni amatuma temps wu ba 5 heures matin nga police ba ci ben barab ma fàtte yàlla amatuma jot gi kooku loolu wax moom waaw par rapport ak ki nga xam ni bu la fi bàyyi yàlla taxut àdduna tax mbaa toppi keneen mbaa toppi leneen boobu de baaxut sëñ Tuubaa bi mu gisee monde bi fi mu toll te mu posé boppam question jox la question bi yow ni la nag lijjanti sa bopp est-ce que say cëriw ñu ngi yedd sab xol wala sab xol mi ngi yedd say cër te yàlla wax ne al yawma naqtimu ala afwahihim ku mu ci yéen dana mos a péncoo pénc moo xam ne du laaj sa gémmiñ waaw sa awro laay laaj fi nga duggoon ku la fa dugal mën nag maa fay nangam moo tax mu dugg fi ñu ngi fay ñëpp pour ñu joxe seen awra danga wax ñaat lañ la fay ah moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen ki la yow doo wax moom moo naa rellet nga baal ma maam góor ma jox junni mu la kon puusal xaar ma ne yow dog lijjanti moom tam besam ne ko fi nga ko dugalul tax mun dama ko sentiroon rek mën ma ko jot ma jox ko 5000 5000 boobee mooy génn ni pàcc seen biir neen balaa yàlla wax a yéen yéen lijjanti leen ma man xaalis ba nga fayoon foo jëm est que doo ci xalaat yow mi jël alal jàmbur comme ça يومي خلو ورطة خل كمسا يومي لا لورطة خل يومي خلو ورطة خل واو يا لاني اليوم نختم على أفواههم كير بيرون خلات لا يجيك انتروسي خل بي بس كم مم ما ديك ناس بين وياك كوني بير دونان كم تان بخي جوي بين وياك في بركة مخمن خلت دجوم واخنا كنا راونونا بو بيب لول لا kon mom du tricher ñu laaj ko ne ko waaw li nga doon bëgg ndax war nga ko bëgg wala li nga doon ndax war nga ko def watu kalimuna ay nga do ko introsé loxoy dana expliquer leg ma may lutax nga may mako ko li ma la jox lutax ma jox lako fan lañ ko jëlé donte da ko nëbboon ken yeguko sun borom neena bis la lay xaar watashadu arjuluhum tanki do ko a lo xam mune xana xawa de rek rap rapena bama sonu ngir banexu bopam tanki lay yalla borom bi neena na dina am jaam bo xamni buy dugg sawara dañ koy partager cieur par cieur parce que cieur bu ko tuumal mu ne dag leen boobu tank wax nga ni ko ah, bokuma yow dara bu dee lol nañ séparé wu légui noo koy mun dagg leen ñu dag yob ben ben barap loxo wax nga ni ko nañ séparé wu bu dee nak ma na duggal dugal da ngay dem ba yow doto deseb cieur parce que cieur yëpp lay wax walay li alquran ko al yawma nakhrib ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasaddu bi bakaar yegsi woon sëñ tuwaa nag ni ginnaaw egg nañ foofu mu jismi ya yaloo mu gis bi ataaban fil juluusi bila fu mu toll sama yàpp yaram bi su ma toogee bëgg a noppaliku mu ne ma jógal Ahmadu dama ko àjjana eggagoo ci yàlla. amalil wa nafsu xaraar heure bii ngay toog jóg jàngi xam-xam mbaa nga jóg jëfi yàlla fay la moo gënoon teew nga toog da ngay récupéré macha allah lil xëyri yadu wa yasubu santaane waay waay mosuma am benn seconde benn heure benn temps bu ma mos toog te ñii ma la wax nii ndeddu nu ma ni ma jógal def jëf wala daati daaban wa wa xaraaru baa ngi nootu ku ne ci noonu war nga cee jàng dara loolu nag doy na sëkk tey ñu jël ko di soññ sama bopp leen soññiwaat rek deuxième étape wala troisième gaa yaa nga ci liggéey ba su ngeen duggee ci seen portaabal yi ay bàyyi fàll de ñu ngay monté bunt ya ay góor yàlla dëgg lanu journée mercredi la ne mbooloo bépp daje woon bi fa joge ñafa fa ñaari fan def nañu ko ko raw bëgg bala ñew bu raax ba égut dana sori moy la fa ne yalla leen yalla wëral te wëral ñun ñëpp nu gaaw taxawando ci liggéey bobu boobu ñëpp nak biir réew mi ak bitim réew ku ne yaa def li nga man ma ngi leen di bëggé yalla xamna loolu maa ngi leen di bëggee ca taxawaay yu rëy di ñaan yàlla may nu ba suur bi ñu koy jébbule yeneen ñi war a ànd ak bâtiment bi yëpp te nekk ci biir dëkk bi yëpp fii ne daanaka parce que presque pare na alhamdulilah ala kulli haal bu ñu weesoo mercredi daa nga xam programme bi fu mu jëm waaye ngeen bàyyiwaat ko xel insha allah bala ci egg rek seen Ousmane dana yëglu lu ci war a def ñëpp daañu ko déglu ci groupe bi ndax ñuy préparé karo ñu koy waajal ñuy préparer peinture ñu koy wajal kon yef ya ngay dox fofu la mbir mi ne bi dess moy bis bu mag bobu ci kanam rek dimbalen affiche ya ngi ni 19 mars moy bis bi gëna a ci non ñi seetaan barab bi waxtan wi yépp ñu ngi leen ko yégalagul tay ñaan yalla yàlla ñu ci jàmm lu waaye ma ne ci doxin rek te mu yiw wala nga mane ko ci defin tam baax nu ngi lay xaar ci loola kon nag ginnaaw yu bees yu feeñ ci biir tox naa ko keroog ci ci ci ci ci xalifa gu bees gi ak ñeneen ñi ci des ni ma leen ko waxee woon fii barki dem may dem ci ci miraas mi bañ defee ba nag bay jóg sëñ Matar yaa ngi gis keroog bi ma sëñ Fallou xëccee ñu tafu ci miir bi li ma jortoon fii rek la ma wax ak noonu ëllëg laa bëgg a dem Dakar ngir waajale ndax wàllu ndawal ndax dëkk bi xaw naa yéeme kon mooy dafa nekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moo tax préparé wu gën koo yaatal préparé wu ci gën gën ci gën a ëppal jëf ji maa ngi ci woo ñëpp insha allahu taala di ñaan yàlla man loo leen ko loolu mooy mbir mi ma bëgg li ko tàmbulee tey yii jëm mercredi ñu gën a tuubal yàlla suñu boroom gën a tuubal xam nga diine ji taw bala la tudd mooy bàyyi ni nga meloon te mel ni neex yàlla mooy diine lislaam budul rasulullah koo ci dugg rek ku ci dugg ku ne baat boobu moo la ci dugal ci biir kon nañ ñëpp bari jéggulu yàlla semaine bii maa ngi leen ciy woo réew mi bitim réew nañ jéggulu yàlla xaadima Mustafa kat astafurlaa bari yi nga doon jàng keroog surtout doon doy mu doy waaye mi ngi gën a jéggulu borom tabaaraka wa taala rasulullah alayhi ñaari baat kalimatu laa ak astafurlaa fan la ci ñëpp ne dafa am imaam xeeti xeeti xeeti xeeti baat yoo xam ni bennam li muy def ci doomu aadama bu ko jaam yëpp xamoon nu bàyyi lépp jàpp ko fi ne léeg nga jàng benn benn benn benn ñaan wala benn tur mu wóor ni àdduna li fi nekk ci ay nombre par exemple fi mu nekk ngi ci huit milliards ñu teg tuuti ba mu moye ko suñ leen comptabiliser woon li fi nekk ci ay garab ñu comptabiliser ko li fi nekk ci ay bayima fépp ndox yi rot ci année bi passé ba temps la yàlla may na jàmm boo xam ne bu jàngee benn ñaan moo ëpp doole ñooñu ñëpp. loolu dafa yéeme. te nit dana ko xam di nekk ak yow ngoon te doo ko xam. xam nga wilaaya ak waliyu mooy niveau yooyu egg fa maanaam am na loo xam saa yoo ko xamee rek bokk nga waaw loolu lay doon ay at ngi nii moom mii fii ne jox naa ko bis benn ñaan boo xam ni bis bi mu ko mokkalee nga xam ne bis bu nekk juróom maanaam juróom-ñetti milliards yi lu jaamu yàlla moom mu am ko daytaale mi yàlla nga gën a wér yow naa maam maam góor mi sax mën na ko yooyu yàlla koy defal jaamam ki ko xamul musu ko nag lu ko neex na wax waaye ki ko mus moom waxaaliwul loolu da wax bi waa kay kelab ci géej ba dee moom du weddi ndox am na yow mi ne ca àll ba nag gas teen mar mara naan gisoo foo naane yaa ndox amu fi waaye kenn ndox rey moom du ko wax gis ñi ko mokkal mën nañ ko astaxfirullah al asim rek laa bëgg simin bii allasi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata habdin salimin laa yamliku li nafsi nafxan wala daran wallaa mawtan wala hayaatan wala nusuwa noonu de la toll bëgg naa bis bu nekk yéen na ci ko ne def miil fii ak ajjuma man mi leen ko wax nag xam naa li tax ma wax ko dama bëgg ñu gaaw dem ci yàlla firdawsi googu noonu nga xam ni ñi amoon sens su fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ma lee am xaas ak ak mag ñu baax ñi fa ñuy fréquenté ëllëg dama bëgg ñu ñi ñu bokk ñoom même place kum neex nag na nga tàyyeel waaye su kàddu gi daanoo nii rek am na ñoo xam ne moom ci Amérique ca France ca New York ca fenn moom ñu denc ko dal ma أستغفر له العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة حب سالم لا يملك لنفسي نفحا ولا درا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا jàng ngeen ci téré seigne touba hmm. nee na benn yoon ben kuko jang ñaan gi sa bàkkaar ba toron ni jabru wala duusi geej yalla effacé ko hmm. ben la wax mom de hmm. ya ci aju ci nak dina yalla yàlla fagul fàggul ëllëg mu ne su ko lim la wax surtout nak ko ñu la ci kon ma ngi wax ñepp nañ ko jema bind ku mel ne biti bu jógee fi fàtt na ko da ngeen am fulla wolof nee na bu bu bu for yow yombee waaw bu for yombee sëgg jafe ah te bëgg bëgguma ëllëg li ngeen di tuddee ay sécheresse yi maanaam taalibe bu demul fenn amul dara asan bëgg ko mag ñi laa bëgg fañ ne ñu fekk leen fa du ma wax ni mukk mënoon na ma ci taayee fekk damay wax ni mën na ma cee fekk. ndax dafa nu ma leen bëggal. muy góor muy jigéen na ngeen nekk ay habit jaamukati yàlla. poroxaan gii ngeen jóge rang-rang gii nit ñi nekkee li ko teg nit ñi mooy soxna su baax su nekkaloon yàlla suñ borom gërëm ko ba ne dukk dukk jii nga nekkee du yaa ko wax fii léegi musta julli mus la julli te jàppul mus julli te wirdul waaw baala xëy sangam tuubal daal di wër këram buubal mais bëggu leen li mu bëgg da ngeen defee nag la 3300 ci mat matal nañ ko mat nañ ko maam moom en tant que jeune femme ak ñett mu fexe ba lijjanti lu toll noonu bu bis bi jotee ñëpp bàyyi seen kër dugg seen i kat kat def ci seen gasoil ñu ko amul paas jëf ju yàlla nangoo mel noonu maam jaara bu sa borom poroxaan wax naa ne bu leen ko jàppee maam ji doonu màgget desene kat bee ko desenee noonu laxas ko séram bu ngande boobu noonu tëlu ko woon solal ko daal di marakis yoo xam ne da ngay da ngay jàpp ni ca 1904 la woon déedéet mo la dàqoon fouf gën la doon ndaw gën la jek mu jaay bopam yalla bay musa ko ko wax ndagam lu jek la ndagam lu jek la moy ndagal xale yi jege maar ko ci gis dafa nan xenjaw ba far la jël gaay du seen morom ndagam lu jek la bu daan bu waaw def ay démarches yi wala su fi nekkon du ngeen démarches yéen hein mu jaay loolu buy dox xam ni moomul suuf si ba di ko këdd te amul ku muy ku muy vanter boppam am na yàlla am na am na ki am na kilifa ba suñ borom xëy takkal ko garaat bii li ma am ci ay ay ay njaboot sëñ bi wax nga ko yow yaa ko jëkk a wax léegi la wax ci jaara kenn yi gënt jege maam maam jaara jaara doy na sëkk xutbu la haafis la aalim la doom jooju mu teg sëñ Abib mii dem nañ ba fu mu tëdd ci ci ci ci xuru Mbàkke dem nga fa sëñ Tuubaa waxal boppam ni boo Abib dundoon doo fi ne parce que ñun ñaar xajunu ci àdduna ñaari sëñ Tuubaa daa xaj ci mi réew ah kenn ki rek dara leen àdduna te opposant du am te yaay ju baax a mel noonu ku la gën ndey moo la gën te ndey ju gën ci ndey mooy ndey ju sell te set day wax ni ñett yiw set ak sell du benn yiw ak set ak sell set moom ko am saabook njàmpe te nu bomb ak ak ya koy booleel léegi egg fa sell sa xol bi ngay dénk yàlla yiw da xam ne ngay abiyewoo wala sa koo jàng loola nag fexe ba bokk ci baax na kon maa ngi leen di jox secret bii nii tey ku ne loo yoroon baax na waaye na nga ko ci boole waxuma la te yooyu boo ko waxee day day faf ki nga bëggoon a yóbbu ci yàlla da ci gis àdduna ji waaye kon ma wax la lu mu lay defal yow yow boo paree yow waaye mën naa laa junjee rek soxla boo ñaan yàlla boo ko paree boo ñaan may la ko waaye du ma la détaillé ndax dama bëgg am ci yàlla maanaam sëñ bi ku umu ah bari ay problème dégg nga li ma wax ñàkk feebar yu bari ay ay jafe-jafe àdduna jëlal sirru bii nga sikkar ko nga xool dégg li wax taw ba taxab bin saalimin yàlla ñëw gi ma ñëw ci sa bunt bari problème a tax ma bëgg a ñëw waxtaane yow nga xam ni ki la gane si jaam bu bari bàkkaar la dëgg jooju wax taw ba taab dil saalimi ñëwuma fi dignité ñëwuma fi personnalité fi am aw ma doog a ñëw aw ma personnalité a ñëw damaa bari problème bari bàkkaar taw ba taab dil saalimi moo ñëw ci yow tey nga xam ne laa yem nekkul nafsi nafan dara bàyyiwuma ko kër xanaa yéen ñi sax benn waaye bu fekk sa kër ne la añu ma taaluma maanaam damaa dëpp cin xale yaa ngay jooy waaye yéen ñi rek laaj naa leen ku ñëw seen kër def ko nu ngeen def yow nga dem ba ci yàlla wax ko noonu. laa yamliku li nafsi aw ma dara nafan wala daran du lu may jariñoo du lu may défensé sama bopp waxuma nag wala moo tan su ma faatoo foofoo ma gën a jaaxal wala nu sora surtout suur bi ñu dekkalee nit ñi ñëpp war a jóg wuy yàlla grande problème a ngi noonu boo gawul mu ñaaw waa lii nga dëkkee ko wax ko yàlla junni yoon te te kafoo da xam ne am nga buur bu mat buur maa ngi leen di may boo gisee ma di ko répété ba ngeen bind ko te jàng ko te mokkal ko te di ko jëfe da ngeen xam ni bu for yombee sëgg jafe li ma sentir ci yéen te ko mooy sopp ngeen sopp sëñ Assane moo tax sëñ Assane bëgg ci yéen sopp goo xam ni li yàlla yor nañ fexe ba tibb ci danga nga daan tarbiyeen donc ba mu xaw a dee da ko jox secret yéen ñi li ma ànd ak yéen dama bëgg yéen ñëpp ngeen fu ngeen génn ci kaw suuf ñu xam ni gaa yaa ngi ndax lépp kon maa ngi leen koy jox na ko ñëpp def nañ nañ tuubal yàlla te def ko ci tuubin bii bi ma wax astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ñi meen wasifa yi ñëpp xam na ni sun mbokk tijaan yi foofu lañ yem doolu wuñ ci dara te seex ne ko wax cinquante fois doo dem sa war a xaadiman ma soon ni continuel waxal tawba tahabbin salimin laa yamliku li nafsi nafhan wala daran wala mautan wala hayatan wala nusura ne tagal ma ci loolu rek ma woon la bal bi tak koko gore tabax mille fois la wax ci semaine bi après bu ñu na leen wax résultat bu ngoy ba ñaan nu xor magalu ren di ngeen gis bu ngeen musta gis insha allah taala yalla yalla defal leen jamm bu wér defal leen sutura defal leen limbal na na na ñëpp tok ndank ngeen ngeen set leen kii yi nii نصر من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاهلي بقى